Eh, TBC boobu lay dagg sama relation ak ñoom balaa ñu fu mu nekk nab naa leen ñëwul man ñëwuma. maa ngi koy laaj ba seen kër ma yàlla def léegi balaa ah, yàlla naa la ko man nee naa la lu ngeen di andi. ci mm-hmm. mariage bi na nekk vers les coups de 17h 18h ndax à de 19h damay dem. dootoo disponible soit la situation wax naa la ko bu ngeen toogee foofu di sabaru yéen a xam. bu ngeen nangu ndawtal ngeen nangu ko mais man <laughs> damay dem. da ngay dem 19h. 19h kañ fi mu dem naa sama yoon. doo dajji kado yi. non non mun ngeen ma ko dajji leen doo xaar say bàjjen yëpp la. pour la rek wax naa leen ko de fast track. Ngoné nag man dëgg yàlla bu ma la waxee man yow laa bëgg loolooy am barke Serigne Bamba nag nag li nga nekkee nii nag mooy fula lii nag mooy fula ak fayda nag nabu ko nañ waxati dëgg balaa ñoo dee bu ñuy mari yi ñu solu ñu mel ni poupée teg ñu ci kaw lal wi loolu perte taa bu du xut ba woy ba farata bi jóg rek nañ takk bagage yi te dem takk jóg barke Serigne Bamba ngoone nag doole na faana man def naa la sama bàjjen national. maay seen rakk mais est-ce nii laa leen yore. sa yoon nekkul ci ñun sa yoon nekkul ci ñun toogal ba xam ba xaar situation yi ne après ñu waxtaanaat sa yoon nekkul ci ñun. ñun danoo sonn nabu. tu n'as pas à la parole sax nag. waaw ñun danoo sonn loolu laa bëgg nga comprendre ko. lii de mooy noggatu yéen ak may noggatu situation gis nga xale yi bu nu marié Facebook gis nga ni ñuy def xëy changer situation matrimoniale. dugal kër tay deuxième yi bari na nag def alliance ah, ah? deuxième yi bari na de. deuxième yi bari na quatrième yi bari na yi bari na. Hmm. mais quatrième yi nag du ñu du assumé. waaw ñaareel yi rek ñoo fi nekk naan nii nii nii mais du ñu assumé ñoom ñi si des du ñu assumé assumé leen nag dama bëgg sama situation matrimoniale changé kër dugg. tribune yéen a kaay. <laughs> <laughs> ay barke Serigne Bamba ngoone li yàlla na lu ko yàlla defal balaa yàgg. amiin li taasukat yi naan balaa yàgg. yàlla nañ ko defal ñu ñëw Colobane. allahumma amiin waay leen tarixe si tous les jours incha allah. sa nekk ko ci ñun. sa xëy situation du Sénégal ci tribune. waaw lu mu ne l'économie au ralenti. abo ah mu ne ndax le port dafa nekk en eau trouble mu ne le pays va mal mu ne xam nga lu tax sax mu gën koo wax ne le pays va mal gii. économie bi nga xamante ne moom la jàpp ne fu mu ne nii dafa doxul daal te port daal boo bëggee dégg fu mu ne nii ndox mi taajootul yaa ngi dégg mu a nag le pays va mal à la veille di màggal xam naa man na mët gis yàgg naa gis titre bu jàmbaajoo waaye bu mel nii moom mosuma koo gis lii moom sawar gu tas la <laughs> titre bi lu nee ngi ci économie ya nga ca ko jàmb rek ralenti ya nga ca port à nos troubles ya nga ca le pays va mal daal di koy tënk ñu ne kañ ñu indi ko ci contexte màggal gi yéen a mën a lii mooy xanaa ñu def ko ramassage <laughs> ramassé waale lépp tënk ko benn tënk mu ne sénégalais yi fu mu nekk nii de plus en plus fatigué tribune bi laay d'accord naa ak yéen dëkk bi dafa métti fattar y a pas xaalis pourquoi a pas xaalis vague de colère entre Waly Diouf Bodian ah ak l'intersyndicale des travailleurs tribune yéen kaay nee na bu ngeen yëree <laughs> page yi ci biir journal bi dina leen ci indi ay détails mbiri véhicule 80 million bii nag docteur Cheikh Dieng nee na noonu Ousmane Sonko Euh, ubbi ab audit gestion ministère Cheikh Tidiane jee gi lu nu war a lux mbut la lu nu war a gëstuwaat bu baax a baax beneen bi mooy tali yi nga xam ne cimetière la ña cay faatu bari nanu lool yéenekaay bi dina ko xamal ginnaaw tribune ñu ñëw ci la le quotidien mu ñëw ci rupture euh, contrat bi am ak ak waa Power mu ne lii friture la sur la ligne Dakar Riyad prince héritier bi mer na ba futtude te wàccagul ci meram ba tey MTN fraîchement et conduit noonu ne la ko yéenekaay ba euh, waxe waaye yow kii du Moustapha Niasse Moustapha Niasse lañ doon def congrès de renouvellement AFP fu mu nekk nii xam nga lu muy waajal mooy après Moustapha Niass keneen kan moo ci war a mën a topp ginnaaw le quotidien ñu ñëw ci beneen yéenekaay bi ci topp Sud Quotidien mu ne accident yi ci tali bi bari na lool et ce sont des accidents mortels sur les routes mm-hmm. mu ne fu mu nekk nii série noire bi mu ngi continuer am na 20 victimes yoo xam ne dont 7 morts ca Koumpentoum samedi euh, yeneen 7 autres décès Euh, amaat na ca itam jeudi 8 euh, août diggante Nduloo ak Xuru Mbàkke euh, foofu itam am na 12 morts ak 8 blessés yoo xamante ne vers Kébémer la woon ak yeneen i accident yoo xam ne yéenekaay bi delluwaat na ci ba tax nag mu ne accident yi fu mu nekk ni doy na waar nañ ci jéem jóg Euh, ay pexe balaa kon yëf yi di gën a ñaaw ginnaaw Sud Quotidien Les ko ñëw ci aéroport international Léopold Sédar Senghor mu ne benn syndicat mooy dénoncé daal carnage financier bi am serveur de parkings payants ordinateurs yi écran plat yi caméra de surveillance yëpp a réer méng mëy ni ni men teg kenn gis ko waaw boo demee daal carnage financier bii nga xamante ne moo am ca aéroport Léopold Sédar Senghor dama ne serveur parking payant ya écran plat ya caméra de surveillance ya yëpp nee nañ mes ni may ne menteng kenn xamul fu mu ne yéen kaay ba ne disparu mu ne le serveur du dépose minute tapis roulant yaag ñaari scanner de bagage ak rayon X yi nga xamante ne ay milliards milliards milliards lay jar ñoom itam nee nañ may ni mes ni menteng kenn xamul kenn mënu leen a teg bët ils sont introuvables lii nag kaala nanu ko defum gëstu institut pour la transparence des pêches bi Sénégal dafa révoqué son statut de pays euh, engagé le journal nous en parle Père Wade da ngeen ni waay daara Wade njàq yokk mi ci songum xeer vox populi ne récurrence des accidents mortels mu ne les cadavres fu mu nekk nii ñu ngi tegloo sur nos routes 19 morts en quatre jours ah vraiment bari na bari na accident bi defaat na ñaari ñaari nit ci ñàkk seen bakkan ca Mboro ah, samedi soir la woon mbiri oto waa ngi nii 80 millions coow li onage la de ma ngay démentir ex directeur général Cheikh Dieng nii ba pare di menacer nag yokku ca beneen ma mooy direction général bi dafa battre en en brèche li nga xam ne mooy allégation sans fondement yu ñetti syndicat yi nga xamante ne fësal nañu ko ginnaaw gi ma yëgal leen ni bu ngeen ko xamul woon président Bassirou Diomaye Diakhar fay day dem tey ci Touba Mbacké Khadimu Rasoul dem seeti ji incha allah xalif général bi ngir waajtaayu màggalub Touba bi libération mu ne document exclusif la xëy wax ñu tey aide à la presse 2023 mu ne nu tegu ci piste xaalis bi wala <laughs> ngoo ne ma dëkk ci wala dëkk ci ma dikk chaîne TV demal radio commercial presse écrite mhm. presse en ligne radio communautaire ak mhm. yeneen i bénéficiaire autre organisme bénéficiaire document en intégralité yëpp billahi boo ko bëggee jëndal yéen kaay bi di libération lépp a ngi ci biir te ngoon li na ci dellu dama la ciy ñëwal tey moom ngay ñëw cas sur cas ñi ñi laaloon ñëpp dinaa ci ñëw laay ngoon na ñu nag ñam di nga ci dikk ak ñu ñamagul woon ñi nga xamante ne ñam nañu ba pare nag bay waaj a ñam ah <laughs> eh, c'est ñam qui se passe <laughs> ah parfois damay bëgg a concentré waaye daal yàlla xel lii rek. <laughs> yàlla xel amul doo ma wol gajaga foofu ba xam. entre. ah doo ma wol gajaga. déedéet bu yàq sa émission. ah, ah soo paree ci kii bi looy dikk ci cas sur cas bi. ci ñemoon. ñi ñam ci revue bi. Euh, nu tudd de rek ki fi kafin gi. dimbali ma aide la presse ñi ci ñam. ñii waaj a ñam. ak ñi ñamaatoon. oh. waaw kàlla ñoo ñoo ñàkk nag Pape Ousmane xam nga lu ma mënut a pardonné nit nabu. ñam ñamal. oui ça me pose problème Pape quand tu ñam une fois un autre qui n'a pas encore ñamee faire la ñam mais toi tu ñam ñamaat. alors que tu n'es pas ñamaable. alors souvent ça pose problème. pourquoi action de belote rebolote c'est ça que je n'ai pas compris. <laughs> Eh, y a quoi frère. café ak yu lay seetaan nii sax. tu crois que les les les goûts des bords là toi si tu goûtes faut laisser les autres goûter tout le temps toi qui goûtes qui goûtes qui encore ngoone eh, après toojal ma s'il te plaît. baax na yéyal la d'accord babe <laughs> observateur mu ne jub jubal jubbanti mu ne les premières fissures. ah dafa mel ni nag Nabou résumé mu Ngoné Saliou Diop bi si gravissime déballage am na ca accusation am na ca. te lii nag mooy nguñum nguñum nguñum nguñum nguñum nguñum nguñum dans la république tout le monde en parle mm. mu ne itam on a Cheikh Dieng mii le temps des prolongations Cheikh daa génn wax on a génn def communiqué ñuy xaar beneen Cheikh bu mag bi yaa ngi dégg mu ne liñ la message neex na on est dans une situation <laughs> ambiguë. Père Ndiaye ñeneen ñamagul de. <laughs> un peu confuse <laughs> et ce qu'on attend c'est un effort de clarification ci loolee la ñuy xaar. Euh, daaray Kocc téléfilm mu ne l'histoire des retrouvailles d'un retour sur scène tuwarkal daaray Kocc dañu ko namm sax théâtre yu baax yi ay ñoom le mandat yaa ngi mm-hmm. dégg yooyu dañu ko nam day saan na yàlla yërëm leen nag sunu acteur yu mag yi nga xamante ne ñoom la ñu perte ay euh, Makhoury Diagne yi yaa ngi dégg bàyyi Ili ah yooyu vraiment nam nañu leen bu baax point actu ñëw ci affaire ONAS mu ne diggante accusation menace ak démenti yéen kaay bi ne Cheikh Dieng moo accusé ministre Cheikh tiijaan Dièye ne ko yow de yaa ma bëggoon obliger obligé ma def ay dil ma lànk ndaare ba tëdd ci tali bi ONAS nag ne yow Cheikh Dieng lii nga wax lépp daaraamu ci ndax xam nga li am ba des mooy lan oto bi nga xamante ne nii jot nga ko te nga jënd ko daal le cadre du projet Anfane réel loolu loolu loolu lañ loolu lañ wax pour nga lijjanti ko Cheikh Dieng nag moom ma ngay mën ne bu ngeen moytuwulee font wi naa ko gën a daaj mu gën a dugg bu fekkete ne ministre bi ci boppam génnuwul tontu loolu nag Pape Ousmane loolu ala tëkku loolu ala tëkku waa te ñun ñun ab lébu nag kenn du ñu tëkku ñun baa nu tëkku danoo génn ci biti yi li tumbal la ay xeer bañ la jàppee dañ la pop ba biir weex xol ma fii dañ la pop ba biir weex ñi ràjjala ci suuf ak ma dégg seex nag dafa daf ko daf ko kii daf ko daf duut baaraam si seex seex seex day xaar beneen seex tontu bu seex demee seex dikk lonaas ne moom de fu mu nekk nii boo may tuulee sax dinaa engagé ay poursuites judiciaires en cas de fausse déclaration ba pare ma yokkal la ci ne la mën naa la promettre ne la dinaa def lumière sur le processus de passation des marchés ndax affaire bi mbiri ONAS la ginnaaw gi ñu ñëw ci source a mu ne bureau de la post bu ndakaaru étoile niche au centre ville fermé au delà du 31 procès gudd na di pour loyer non payé ok échec de la visite de Mary Teuw Niane en Arabie saoudite détail d'une douche froide source A moo ko wax accident circulation yaa ngi nii bilan bi diis na loolu 18 morts en 72 heures ah nañ accident yi moom yàlla na ci yàlla taxaw waay kii kàlla xamee ngeen. waaw Aminata Mbengue Ndiaye bu parti socialiste. kan mooy ah ah Ndiaye bu parti socialiste. yéen kaay bi di info dafa ne recomposition politique conquête du pouvoir mu ne parti socialiste fu mu nekk nii dafa jàkkaarloo ak destin moom depuis 12 ans mu ngi ànd ak APR. nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar tey jii nag dañu nekk dans la tourmente nekk itam dans la nekk itam au bord de l'implosion parti socialiste fu mu nekk ni mënu moytuwul faaw nu jéem a xool naka la ñuy def ba téyewaat yëf yi bu baax a baax le retour probable des dissidents notamment Khalifa Sall bu parti bi loolu rek doyul waaye il faut ñu dem jëli ji ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekkoon ñëw dajalewaat njaboot gi na bu koor bu week-end jotee den nelaw le parti devra nécessairement réadapter offre politique mu ne ñu faire parti l'alternance générationnelle en mettant en avant des leaders comme le maire de Dakar yow may euh, ma tuuti ba seul pause fii ay yow ana Barthélémy Dias Adjaratou Ngoné Saliou Diop demoon na ci armeel neen bu kenn kii woote bu fa kenn nekkati di jaay ay place mu ne bu kenn nekkati di jaay place sama place dañ koy réservé place ci armeel ni ngay demee restaurant nga woote ci réserve balaa ngay dem nga am sa table loolu la ñuy def ci armeel yi mu ne nag ci restaurant ak hôtel la ñuy réservé mais ndax dafa am ñoo xamante ne dañoo jënd seen seen seen seen espace koo xam ni pour seen famille la seen njaboot wala pour ñor ñoom. Barthélémy wax na dëgg. am mhm. na dëgg kat yow ma yow sax man dama xamul yow ma xiyaam li ci jëriñ njëkkante ba ngay jënd place di denc. ah xale neen ku jënd un mois de woo nga ñàkk sa xaalis. ah c'est ça. non si pas ça suggestion la. déw. ñëwal ñëwal ñëwal yor yor bu sëriñ Saliou noonu Saliou du nitu dara maa ngi bu mu ne ARTP dafa mobiliser opérateurs yi pour une meilleure qualité de service yor yor bu sëriñ Saliou laa leen ne. mu ne jub jubal jubbanti bi fu mu nekk nii mu ngi en marché de ca port autonome bu Dakar contrairement yeneen yéene kaay yi li mu wax mu ne les allégations mensongères de l'intersyndicale moom la ñu mettre à nu respect de la procédure d'appel d'offres de les respecter dans tout le déroulement de la procédure de passation de marché aucun conflit d'intérêt aucun renouvellement des CDD arrivé à terme aucun contrat en vigueur suspendu yooyu yëpp dara amu ci nee na la ñuy wax ne moo am ca port dara mu ci. te day ñor dina rek. ah yor yor de loolu la ah, wax ah si leen di xaar ah, euh, aide à la presse dette fiscale précarité des journalistes SOS pour une presse en dans le coma. Ah, def leen journée sans presse amul problème yow da faj yaa ngi dégg. loolu tamit da koy faj le soleil mu ne lutte contre la recrudescence des accidents de la route état bi corsé na les mesures il le faut parce que vraiment accident yi il faut ñu jug ci ginnaaw gi le soleil on y ñu dem ci beneen bi bés bi le jour ñëw ci Sonko ak son impossible déclaration de politique générale dribble politique gagnant aji mberkaan ko kadute nee na bu fekkente ne Sonko deful déclaration de politique générale am lii mën naa nekk offense au chef de l'État xaar leen ba ngeen ba mu leer na leen ne yéen ñii di ngeen fekkee def la déclaration politique générale dëgg. chef de mooy xool ndax dañ ko offensé wala kan. mooy xool ndax en tout Sonko boole leen ak sénégalais ba ñëpp xam ne ñoom dañoo defandi vitrière ah, mu neen defalaat leen ko mooy li nga dindi woon defaat ah ma lay wax rek de. <laughs> léegi nag mu des ndax di nga fekkee wala déet waaye ñëpp xam nañ daal di règlement intérieur bi ngeen defoon am na kooku kii. <laughs> xam nga xam nga ngoone xam nga lii lu may fàttali euh, Nabukoor waa ji dafa am ñeenti jabar muy tukki Pape Ousmane Cissé yaa ngi may dégg may ma noonu. mooy tukki ku ci nekk naan ko nijaay nii ngay demee xanaa balaa ngaa dem nag nijaay maak yow dinañ gise nag a ah, nijaay ku nekk naan ko yow man ne wax dëgg yàlla mere naa la trop nijaay moom nga nar a dem nii rek bàyyi xolal mu sonn yaa ngi dégg tegale mm-hmm. leen ñu def cercle waa ji taxaw ci digg bi bu dee kii xolal xaar ñëw ci kii ne ko raal ñëw ci kii baax ñëw ci kii maa ñeenteel bi ñëw xanaa kooku moom moo gën a neex la ci jabar ji kooku moom mooy préféré jabar ji loolu mooy xaaral ba ma ñëw ndax xamaguloo ba xam ngoon a Saliou déclaration de politique générale dina la fi fekk waaw wala déet attendons de voir n'est-ce pas du président de la république laajte naw dat te dat bi dat ab kii la conseil constitutionnel moom joxegul dat bi dat bi si yow yaa ñu moom ah lan la dama leen di expliquer contexte rek daa nañ nekk ñu mais mu ngi mel ni Ngolle Saliou yow tey jii yow da nga fàtte ki la waroon a jox paas màggal war laa jox paas màggal jox ma paas du ma la jox paas jox ma paas du ma jox paas nga fasal ko kanam ak ko fukki fan ak juróom-ñett mu lay woo téléphone def la <laughs> Idriss ba mu la joxee loo waxoon ku ne dinaa màggali wala du ma màggali waa ji daa tiit ba ne la waaw waaw di nga màggal ba weesu lu la <laughs> de mu ne recrudescence recrudescence des accidents bi fu mu nekk ni génnee na bâton <laughs> ndax accident yi dafa war a jeex takk beneen bi mooy ñu tëj ak record daa mel ni moo ci des de wala. <laughs> ñëwal record <laughs> tubaarkàlla record mu ne coupe africaine de clubs premier tour aller bonne opération de TFC et Jaraaf à l'extérieur super coupe d'Arabie Saoudite Al ak Al nasar nasar boo bëggee xam score match bi 4 buts la à 1 Koulibaly moom fu mu nekk nii frustré na encore Sadio noonu la ko yéen kaay bi waxee làmb jaa ngi lutte Lac de moom daal alburax Evans la joxoñ baaraam mu ne Baye Ndiaye moo ma promettroon ne ma dinaa jot ñaari avance Baye ana avance Lat <laughs> nee na Baye Ndiaye moo ko digoon ne ko dina ko jox ñaari avance Lac de Guiers 2 nag fu mu nekk nii mere mer dafa mel ni dafa mer xaw ma dafa mer xaw ma daal dafa bëgg waa alburax Evans sa tëggal ko combat te xam nga boo jógee ci ay jafe-jafe Pape Ousmane <laughs> léeg ngay soxla nit ku la wallu nii yaa ngi Mm-hmm. xam nga boo xamee nii dangay ngay bëgg ku la. ximmali déedéet loolu du expression ximmali dafa dafa kii dafa tubaabe trop. busaabus mais c'est ça. déedéet busaabus boobu dafa tu boobu dafa tubaabe trop. Ah. boo këmee. ku la yee. ah. léegi wax ko sa bopp nag. ah loolu kay du man ngeen koy wax dangeen koy laaj pël ba demoon ca jàng ya loolu ngeen koy laaj pël ba demoon ca jàng ya ngeen koy laaj. lu mu def ah pël bi kat daa dem ca jàng jàng ya. demee ca jàng ya nag di jékki-jékki di këf micro bi asalaamaaleykum dama ne ki ma fekkoon fii may nelaw laa la wax mu sama ñaari junni kooku laa bëgg kamkal la pël bi ñu neexal neexal ba sonn ngoone saali pël bu dëgër bopp <laughs> pël bu jigéen bu dëgër bopp benn waaye na ko ok léegi kaay kaay ñu waxtaan kaay ma jox na ñaari junni xoola jàpp pël diiri ba ci ginnaaw baas bi defal pël bagage bàyyi pël li pël delluwaat ci micro bi daal ne asalaamaaleykum <laughs> dama ku ma kimbi lii rek laa doon laaj mu ngeen ma ko waxul nag micro bi moom du ko teg ci suuf <laughs> nit ñi soon mu ne eh, dama ne ngeen wax ma ku ma kimbi noonu <laughs> muy wane ah waaye yow soxna si waa ji ñëw ba ci noppam ne ko xoolal soxna si sutura rek maa la kimbi lii mu ne ko dee rek garaawul damay doon wax rek ne garaa Dakar suba am na ay jànga wittee damay daanu na nga ñëw kimbi li ma no bonne journée